أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه والسراجا منيرا إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فمرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام mbokk yi ginnaaw bu nu tàmbalee ci tur yàlla tabaraka wa taala ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam darsu tey ñu ngi jël al bushra bi ishaq alayhi salaam bégil bi nga xam ne buur yàlla tabaraka wa taala bégal na ko yonent yàlla ibrahim may ko ñaareelu doomam bu góor bu tudd ishaq alayhi salaam lu ko jiitu mooy laqad aslafna anna ibrahim kaana qad arsala luutan alayhim assalaam ila ahli madyan sadum ليدعوهم إلى عبادة الله جل وعلا وإلى أن يتركوا تلك الفاحشة التي كانوا يفعلونها فلما لم يستجيبوا له ويعس لوط من هدايتهم لجأ إلى الله عز وجل وقال رب انصرني على القوم المفسدين lu ko jiitu mooy xam ngeen ne yonent yàlla ibrahim yónni na benn doomu mbokkam bu tudd luut alayhi salaam mu yónni ko dëkk bu tudd madiyan da ngeen ci alquran wa ila madiyana waaye nag dëkk la boo xam ne mu ngi tudd sadum madinatu sadum sadum mooy dëkk bi yàlla yónni woon góor jigéen ñi sadum mooy dëkk bi góor jigéen ñi nekkoon yàlla yónni fa benn yonent bu tudd luut alayhi salaam ñoom ñoo njëkk a nekk ay góor jigéen ci kaw suuf mooy sadum ñu ngeen dégg yàlla ba mu leen di alak mu ne jaalna aliyaha saafilaha yont yàlla luut la fa yàlla yónni ngir mu woo leen ci yoonu yàlla pour ñu bàyyi aada bu bon boobu mooy lan góor jël góor def ko jabar góor di jabaroo góor kon du tey maanaam ñi koy def fii tey ci àddina bi ay sëtu ñi ko doon def démb la ñooñu ñooy seeni maam ñii ñooy sët yi yàlla yónni loot pour mu dem waar leen ci dëkk boobu tudd Sadum pour ñu bàyyi aada bu bon bu xaram bu ñaaw boobu nga xam ne bokkul ci sunanullah fil ard ndax yàlla sunnam mooy góor takk jigéen jigéen am jëkkëru góor loolu loolu mooy sunanullah fil ard waaye xoolal doomu aadama ci bëgg salte ci bëgg tilim ci bëgg lu bon naka la góor di amee jëkkëru góor ma doomu aadama la mbon la mbon neex mbon mbon dafa neex doomu aadama xam ngeen ne góor ak góor na la ñuy séy góor ak góor góor am na yenn façon jigéen sax góor dootu mun a bànneexu ci ñoom waxuma la ak nag góor ak góor wallahi lazim bi lu demee def effort wax waaraate pour ñu bàyyi jikko ju bon boobu falam yastajibu kenn wuyu ko mu wax wax ba tas kenn faale wu wa yaay sa luut mu découragé complètement mu ñàkk ci ñoom yaakaar ñu ñàkk ci ñii doo dootu ñu jub mu xam ne ñii jàqu nañ nan la def mu daal di tourné laja ila allah mu tourné ci borom wiiru ci borom bi tabaraka wa taala làqu ci moom qaala rabbi unsurni alal qawmil mufsidin mu ne yàlla maa ngi lay ñaan nag ma dimbali ci yàqkat yi bi mu ñaanee ñaanam gi xam ngeen ne yonent moom ku yebo ragal ñaanu yonent yonent moom saa yu ñaanee yàlla mooy bal bi tàkk na mu ne yàlla nag ma dimbali ci yàqkat yu bon yi nit ñu bon ñi yàlla nag ma leen dimbali ci ñoom fa arsala allahu malaikatan fi surati subbaan fi gaayati alxusni waljamal yàlla daal di koy yónnee ay malaika malaayika yoo xam ne ñu ngi yor melokaanu ay waxambaane ñu ngi nekk ci daytalu rafetaay xale yu góor yu rafet yu taaru waaye lu ñu njëkk a def balaa ñuy dem Sadum ba ñu wàccee ci kaw suuf dañoo jaar ci yonent yàlla Ibrahima fa marru awalan ala ibra ala Ibrahim alayhi salaam sa malaaka saa yu wàccee ci kaw suuf bu fekkee jamono jooju mala yonent mu ngi ci kaw suuf malaaka bi foog mu ñëw ziyaara yonent bi ba pare doog a dem defi mission bu ko yàlla sant loo mën a ngeen gis ci waa jooju malakal mawti reyoon te malakal mawti ba mu koy rey ba mu ko fekkee ci Suleymaan dafa tiit ndax dañ ne ko woon demal ind rey waa ji mu wàcc fekk Suleymaan mu ngi baytul maqdis mu ñëw di ziyaara Suleymaan fekk waa ji toog te ind la ko waroon fekk pour rey ndeysaan mu tiit mu xulli waa ji bët waa ji tiit daan ne Souleymane waxal ngelaw lu mu yóbbu ma parce que kii ni may xoolee neexuma ngelaw lu yóbbu ko Inde bi muy wàcc Inde rek fekk malakal mawti mu ngi taxaw ne jasru bi malakal mawti ne ko xam nga lu taxoon mu xulli la sama bët yi mu ne ah mu ne bi ma waruma loon fekk foofu fii laa loon rey parce que yàlla dinoon naa dem indi rey la même te ay seconde moo ci desoon moo tax mu ne ma la fekkee ci Souleymane damaa tiit waroo ma xulli la samay bët. malaaka saa yu wàcce ci kaw suuf mu fekk ab yonent day ziyaare yonent bi ba pare loolu moo tax malaaka yi biñ ñëwee war a jëm kër Luut dañoo ñëw ziyaar si Ibrahima alayhi salaam dañoo romb kër Ibrahim pour ziyaare si ko malaaka yooyu ñett lañ woon wa kaanu salaasa jibril wa mikail wa israfil ñetti malaaka ñoom la yàlla yónni woon nañ dem alagi ji waa saduum biñ ñëwee ñoom ñett jibril mikail ak asrafil falamma raawhum ibrahim alayhi salaam lam yaarifuhum ibrahima ba mu leen gisee ñoom ñett ñu nekk ay waxambaane yu rafet yu taaru xàmmewu leen xamu leen mu daal di gaaw nuyu leen ibrahima bokk na ci li ko yàlla taggee mooy dafa mënoon teral gan ibrahima yàlla ko tagge loolu ku mënoon teral gan la bi mu leen seenee rek mu ne leen salaaman qaala salaaman yàlla na jàmm nekk ci yéen ñu ne ko yàlla na jàmm nekk ci yéen kon nga gis sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam yi ñu koy laaj lan moo gën a baax ci islaam ayul islaami xayr qaala tut'imu taam wa taqra'u salaam ala man arafta wa man lam taarif diina ji lu ci gën a baax mu ne jox nit ñi lekk ak nuyoo koo xam ak koo xamul xoolal ñun sunna boobu dañ ko rey tey bala ngay nuyu nuyu koo xam yenn saa yi sax nga gis koo xam di ko nuyu asalaamaaleykum mu ne la la salaam wala kalaam yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu salaam mu ne ñaari jullit bu ñu dajee kenn ki ne ko asalaamaaleykum wa rahmatullah keneen ku ne ko wa aleykum salaam wa rahmatullah ñu jàmm sante daal di saafonte mu ne lam yabqa baynahuma zanbun illa saqata ñoom ñaar fekkoon dañoo am ay bàkkaar ci loolu ñuy nuyante di jàmm sant mu ne bàkkaar du des seen diggante loolu mu wadd foofu ñu taxaw lam yabqa baynahuma zanbun illa saqata dont yàlla Muhammad moo wax loolu kon nuyoo dafa bokk sunna Ibrahim moo tax bi mu seenee malaaka yi lan la leen wax salaaman qaala salaamun yàlla na jàmm nekk ci yéen ñu ne ko yàlla na jàmm nekk ci yow mu jóg dalal leen mu dem ci soxnaam mu ne ko dañoo may gan nu mu def xam nga leen xamoo leen déedéet Ibrahima daal di fàq dem ci gétt gi daal di jël benn yëkk bu duuf ijlin samin mu rey commencé wàcc xam ngeen wàcc ah lakk mu commencé koo lakk ba mu ñor mu indil leen ndeysaan waaye ba mu leen séenee ba mu indee lekk bi ñu toog moom Ibrahim dafa bokk ci booy taral gan nga indi lekk ak naan doo indi lekk bi ba pare dem toog ne ko lekkal kon gan gi du lekk wala nga indi naan bi ne ko naanal kon gan bi du naan sagan kañ lay lekk kañ lay naan boo bokkeeg moom li nga indi bal sax di ko dagg di ko tegal wala di duy veer yi ndox di ko ko puus ak di lekk di xam-xam yi ngand mu lay gis boobu mun laa toppandoo Ibrahima gaawantu ci loolu commencé di lekk pour ñoom ñu lekk waaye mu jékki-jékki seen ñoom lekkuñu mu tiit fu mu séenee gan yi lekkuñu mu tiit ndax ñoom dafa bokk ci seen aada boo amee gan nga teral ko lekkul musiba la nam mu ci yow fas yéenewu laa defal lu baax ay gan seet si la nga defal leen taraanga ngay lekk lekkuñu loolu ku ko ku mu doon ci ñun sax di nga tiit boo amoon gan goo xamut nga def loolu lépp effort yooyu lu nekk nga indi ci lekk ak naan nga teg lal affaire yi ba mu rafet indi lekk yi indi ndox mi ngay ne ko bismillah kaay lekk ngay lekk moom mu toog di la xool te ñuy ñetti ponkal yu góor yu gand war ngaa tiit Ibrahima tiit ba mu tiitee mu ne leen allah taakulun lu leen tere lekk fa lamma raa aydiyahum la tasilu ila taami fa awjasa minhum xiifa ba mu gisee ne seen lekk seen loxo loxo moom loxo malaaka yi laalu ñu lekk bi mu tiit lan moo tax malaaka yi lekk loxo malaaka yi lekk bi ah ah waxoon nañ ko ci dars bu njëkk première leçon malaaka du lekk du naan malaaka du lekk du naan moo tax waaye lan moo tax fii moom xamul nañ ñi ay malaaka lañ lu tax parce que bi ñuy ñëw melokaanu nit lañ ñëw moo tax mu dem bu dafa ne ñi ay nit lañ mu dem rendil leen lakk ba mu ñor waaye ñooñu lekk ñu mu tiit wa zalika li anna taqalidu ahli albadiya anna dayf ida mtana an itaami fa maana zalik annahu yuridu bi saahibi albayt sarran ñoom dañoo bokkoon aada dañoo yoroon aada boo xam ne soo amee gan nga taral ko lekkul mooy lu bon la namm ci yow wa kaana ibrahima alayhi salaam qad lahaza baadu l asya munzu qudumihim alayhi ibrahima am na lu mu seetlu ci ñoom depuis bu ñu ñëwee mu commencé nag comme lekkuñu mu commencé di leen laaj ndànk ba mbir yi fu muy teer Ibrahima xam ne ñi ay malaayika lañ waaye fuñ jëm lan la ñuy ursi lan mooy seen mission loolu la Ibrahima commencé léegi nag di lijjanti Ibrahima seetlu na ne ñii ay étranger lañ benn ñaar xam ne ne ñii dañoo tukki ñett gisul ci ñoom asaru safar xam nga malaaka yi ñoom chaque jour buy ñëw yaa ngeen ci hadisu jibril hadisu umar ibnu alxatab baynama nahnu julusun inda nabi sallallahu alayhi wa sallam istala alayna rajulun sadidu bayadu siyabi sadidu sawadu saar la yaarifu minna ahad hatta jalasa inda nabi sal yaa ngeen waajooju lan la hadis bi continué mu ne la yura alayhi asaru safar kenn gisul ci ñoom trace tukki lu tax ndax malaaka buy ñëw ci kaw bu ñëw cëpp rek day nekk nit kon amul aajo amul aajo muy dox ba sonn ngay gis ci moom trace tukki ku tukki yan trace la ñuy gis ci moom yére yi day froissé day pënd day poussière day ñàkk day sonn bëri day dugg kawar yi ca jaxasoo sikkim bi jaxasoo bu dee góor la tànk yi pënd dàll yi mu sonn yore ay bagages soo gisee ku mel noonu xam ne kii ku tukki la Ibrahima seetlu na ñi gisul ci ñoom loolu mu xam ne kon ñii ay malaaka la mu laaj leen nag léegi ñu seen mission malaaka yi gis nañ ko ne tiit na ñu ne ko laa taxaf inna ursilna ila qawmi luut ñun yàllaa ñu yónni ci nitu luut dañ leen di war a alagi ci ndeysaan yàllaa ñu yónni mission mission la ñuy dox ci borom asamaan ak suuf moo ñu yónni mission bu am doole mooy lan mooy ñun dañooy war a ñëw tey écraser waa samu waa Sadum Ibrahima ku baax la woon ku lewet la woon mu commencé xam nañ ne de alkande yàlla xëjul ci doomu aadama mu commencé di di négocier ak ñoom naan leen waaw est-ce que bu ñëwoon xaar tuuti amaana ñoom ñu gëm wala bu ñëpp gëmul it am ñu ci gëm wala ñu am ay doom yoo xam ne dinañ gëm malaaka yi ne ko non ñun yàlla jox nañu ndigal ba pare malaaka moom laa yaasuna allaha ma amarahum wa yafaluuna ma yumaru ñun yàlla jox nañu ndigal xas nañoo wàcc ñun li yàlla wax moom ñun dañ koy def ndeysaan malaaka yi Ibrahima doon waxtaan ak ñoom luut ñaanoon na yàlla yàlla na ko yàlla dimbali ndimbal moom mu ñaanoon yàlla ndimbal moomu moo ñëw tey malaaka yi wax ak loolu Ibrahima daal di génn dem defi ji li leen yàlla wax waaye jamono boobu Ibrahima di wax ak malaaka yi ñaata malaaka lañu woon ñett malaaka yi bégal nañ ko ne ko sa soxna si tudd Saara nga xam ne am na juróom-ñeent fukki at ak juróom-ñeent yow tey Ibrahima nga nar a am téeméeri at soxna si dina am doom ndax ganale bu mu leen ganale sonn gi mu sonn ñu bégal ko ne moom day yàlla tabaraka wa taala dina ko may doom ndaw si dafa taxawoon màgget la juróom-ñeent fukki at ak juróom-ñeent daa di waaru daa di pes boppam daan ne man juróom-ñeent fukki at ak juróom-ñeent naka laay amee doom sama jëkkër ji màgget la naka lay amee doom yàlla mu ne fa basharnaaha bi ishaq wa min waraai ishaq yaqub yàlla mu ne may naa ko doom moom bu jigéen ki fa basharnaaha bi ishaq may naa ko doom bu tudd ishaq lii moo tax ismail mooy taaw ibrahim ki mooy ñaareelu doom bi ismail a kuy yaayam hajar ishaq kuy yaayam ah saara ñaari soxna la ibrahima amoon hajara ak ak saara yàlla mu ne may naa ko doom bu tudd ishaq ishaq moomu am na doom bu tudd yaqub yaquba boobu am na doom bu tudd yusuf moo tax ibrahim mooy abul anbiya moo jur ismail yonent la ishaq yonent la yaqub yonent la yusuf yonent la moo tax yusuf yonent doon wax ne doomu ku baax doomu ku baax doomu ku baax doomu ku baax yusuf kuy papaam yaqub yonent la ku baax la yaqub kuy papaam yaqub kuy papaam ishaq yonent la ku baax la yaqub kuy papaam yaqub kuy papaam ishaq ishaq kuy papaam Isxaaq kuy papaam Ibrahim yéen tamit seetaan nañ film bi Yaaxub ban dëkk la ko yàlla yónni woon ah Kanaan après mu gàddaay dem Yaaxub laa wax déedéet déedéet bi papa Yaaxuba deewee Isaaka bi mu faatoo du dañoo jël Yaaxub mu dem foofu dëkk bu nu mu tuddoon Kanaan ragal leen yàlla jàpp leen daf si malaaka yi bégal nañ saara ne ko dinañ la may doom fa aqbalat imraatahu fa aqbalat imraatuhu fi sarra fa sakkat wajahaha soxna ibrahima alayhi salaam boobu tudd saara pes na boppam ni jigéen ñi def rek yenn saay seen aada sara xolle wala yuuxu bu ñu gisee lu leen waar wala lu leen yéem wala ñu dégg ko mu ne naka laay amee doom man may màgget yaa waylata a alidu wa ana ajuzun wa haza baali cheykha ay man naka laay amee doom man may màgget kii sama jëkkër la màgget la naka la ñuy amee doom inna haza la cheyun ajib lii mbir mu yéeme la ngay wax na dëgg de téeméeri at am doom lu sa lu sa ali saal di wax nee na paa yi dootuñu ngénteeti paa yi dootuñu ngénte paa yi pikiir nañ leen naanal leen ay comprimé mënatuñ dara nee na paa buy ngénte am bëree tudde ah ku la dàq naan garabu tubaab moom la gën a feebar moo tax waaye naan garabu tubaab da ngay gaaw a màgge da ngay gaaw a tële dootoo mun dara gis ngeen Ibrahima ñaataat la am téeméeri at jabaram ñaataat la am juróom-ñeent fukki at ak juróom-ñeent te mu ngi nii yàlla di ko may doom loolu kéemtaan la tey fi àddina bi toll biñ gis góor gu am téeméeri at di am doom bariwut de jigéen ju am juróom-ñeent fukki at di am doom jigéen moom instant yi ñu toll ñaata at lay am juróom arrêté ah ñaata at léegi kay sax ay 45 ans 50 léegi 40 waxutuma la sax ñooñu sax naanuñu woon ay comprimé waxuma la ñii nag nga xam ne dañuy wax cité cité bëgguma am doom la ñuy dëkki parce que xam ngeen ne cité bëgguma am doom am na xam ngeen lo benn néeg ak saal mooy cité bëgguma am doom benn néeg ak saal Yaaxub ñaata doom la amoon ah Yaaxub ñaata doom la amoon de du si góor la sax fukki doom ak ñaari góor yi la jigéen ñi nag gis ngeen fukki doom ak ñaari góor ñi la loolu tey boo ko waxoon fii ne diw ñu ne subhanallah ci xanaa dafa dof fu mu jëmee lii fu mu ko jëme yàlla mooy koy maye ndeysaan mu ne man de yéemu naa lii de mbir mu doy waar la man may màgget nasiyat saara an almalaika alkiram mulazina yaxmiluna albusra inda malikin muqtadir saara fàtte na ne ñi ko wax wax ci fan lañ bàyyee ko ay lan lañ ay malaaka lañ kan moo leen yónni kon kon loolu waraam la wala lu warul nekk yàlla xam dara bëgg ko namm ko ba yónni ay malaaka ne dem leen ngeen wax ko kon est-ce que nit bu déggee loolu war naa waaru déedéet yàlla innama amru iza arada shay'an an yaqul lahu kun fayakun yàlla bu bëggee def dara kenn mënul koo baare danaan kun fayakun yàlla bi mu nammee yónni Moussa Firawna ne ku judd ñu rey ko est-ce que yàlla aj na mission bi fa amruhu baynal kaafi wan nuun mission bi ajuwul yàlla daa bàyyi firaw nay rey te Moussa judd firaw na gisul Moussa sax waaye yàlla dénkaat ko ku ne ko yaa fay yàlla ndeysaan saara fàtte na ne ñii koy wax lii naan ko di nga am doom ay malaaka lañ mission bi ñu leen yónni yàlla moo leen ko jox raddaha almalaika ila alxaqiqa alilahiya xaqiqatu alqadri allati la yuqayiduha shay'un malaaka yi fàttaliwaat ko moom saara dëgg gi nga xam ne mooy moo bàyyi ko ci yàlla dëgg gi nga xam ne mooy dogal bi yàlla nar a def te mooy ndaw si dafa nar a am doom yàlla bu dogalee dara amul lu ko mën a gàllankoor amul lu ko mën a téye moo tax dafa bokk ci arkaanul iman ak imaanu bil qadri xayrihi wa sharrihi foofu la nit ñi rawante mooy gëm dogal li neex li naqari yonte yàlla Muhammad da doon testé benn bis Omar ibnul Xattaab am ngeen testé lan mooy testé testé mooy lan ah testé mooy lan mooy examiner ko seetlu ko yonte bi ne Omar amuminuuna antum ndax yéen gëm ngeen yàlla Omar ne ko waaw waaw ñun gëm nañ yàlla dëgg gëgg ngëm yontim ne yaa Omar fama alaamatu imaanikum lan mooy wane ne gëm ngeen dëgg dëgg ngëm mu ne ko narda bil xada wa naskuru fi raxa wa nasbiru alal bala narda bil qada lu yàlla tëral ñun neex nañu lu yàlla tëral rek neex nañu ndeke bala ngay gëm yàlla foog li yàlla di def mu lay neex si yàlla defee dara ci yow neexu la gëmoo yàlla foog ngay nangu ndogalu yàlla lu yàlla def noonu la fa kullu ma faala al jalil fa huwa al jamil lépp lu yàlla def loolu lay lu rafet danaa feebar nga nangu ne damaa feebar mais c'est que soo gisee ma feebar barki démb bi may dem li ma soloon non il paraît ni ma doxee la di yaa ngi indi lay gëmal ndogal yàlla nga noppalu narda bil qadar lu yàlla dogal ñu nangu wa nashkuru fi raxa bu neexee dañuy sant yàlla bu neexee kan la ñuy sant duñ wax ndeyam ko liggéey kii xamoon nañ ne yaayam li mu def ci kër gi dina am lii Sénégal léegi loolu la ñuy def bu nit defee dara ñu ne yaayam ko liggéey wala mu ne moom innama utiituhu ala ilmin indi comme ni Qaaruna waxoon non man bon bii ma ci génn non li ma def non li ma daj non li ma veeye non non déedéet du loolu de santal yàlla yàlla moo la ko may rek yàlla moo la ko defal du sa doole am na ñu lëpp doole du sa xam-xam am na ñu lëpp xam-xam du sa kàttan du sa alal am na ñu lëppale amuñu loolu kon yàlla moo la ko may waaye nasbiru alal balaa wala yàlla tegee nattu nga muñ balaa bu musiba wàccee sa kaw nga muñ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam romb na ci ay armeel ñuy suul benn xale yaay ji di yuuxu di bërëngu kenn mënu koo téye yonent bi ñëw ba ci moom ne ko soxna si tee ngaa muñ mu ne ko muñu ma li ma dal dalaa dalul rek ba mu am deux jours ay fan ñu ne ko yow xam nga barki démb ki doon wax ak yow wax nga ne ko muñu ma mu ne déedéet ñu ne ko Muhammad la yonent yàlla bi mu ne subhanallah kon ni def naa musiba mu def demi tour wër yonent bi ba gis ko ñu ne seeka bi ngay waxaan nga yonent ne ko eh as-sabru as-sabru inda sadamati al-ula muñ mooy ba mu mettee ba mu ne tëll rek nga muñ waaye mu ne tëll nga def ay pexe ba nga xam ne tële nga nga ne xaaral ma muñ mu ñëw muñ mooy bi mu ne tëll nga muñ waaw xam ne yàlla moo ko dogal waaye nga def ay pexe wër def lu nekk mi ngi mel ne ku ku ñu sàcc alalam ku ñu sàcc alalam mu bëgg ñu fay ko alal ji mu dem wër ay buxaaba dugg fu nekk tibb tànk sàcc bi def lu nekk dem fu nekk alal bi feeñu na xaaral ma muñ c'est trop tard ah muñ ca ba muy dal la ngay ndeysaan ibrahima alayhi salaam wax nañ ko mbir ma ne ko yàlla tabaraka wa taala dina la may doom yàlla moo ko dogal yàlla lu mu dogal lool la mu daal di waaru malaaka yi ne ko ataajabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaykum ahlal bayt innahu hamidum majid yow saara ndax da ngay waaru ci kéemtaanu yàlla tabaraka wa taala ndax da ngay waaru ci santaane yàlla lu yàlla namm amal ko yow da nga ci yéemu yërmande yàlla bu yàlla nar a wàcce ci yéen waa kër gii yéen kër gu nit ñu baax ñi alal bay xanaa xamu leen yàlla innahu moom hamidun majid su ngeen daggitu aaya bi nii su ngeen di def salaatu ala ibrahima moom ngeen ciy boole allahuma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallayta ala ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta wa ala ali ibrahim fi lalamina ngeen innaka hamidun majid yàlla tabaraka wa taala hamid waaye majid hamid moom dong la ñuy sant moom moom cant ki hamid mooy ku ñu sant ñaata làmmiñ ñooy xëy di wax alhamdulilah ñaata làmmiñ hmm? ñaata làmmiñ waxuma doomu aadama rek de ba ci rabu àll yi picc yi dañuy xëy di sàbbaal yàlla di ko sant ci biir géej jaww ji jéeri ji dañuy xëy di sàbbal yàlla wa in min shay illa yusabbihu bihamdi rabbihi wa in min shay la yàlla amul dara amul dara min shay dul bu xëyee mi ngi sàbbal yàlla yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi l ard ma fi samawati wa ma fi l ard mi ngi sàbbal yàlla li ci asamaan ak li ci suuf loolu yàlla waxul nit de dane maa fi samawaat wa maa fi l ard sabbaha lillahi fee lan la waxoon sànq yu sabbihu fii mu ne sabbaha lillahi maa fi samawaati wa maa fi l ard gis nga kon borom bi tabaraka wa taala mooy ku ñu sant mooy ku tedd mu ne la astatibu huna an asifa lakum kayfa kana farha farhatu ibrahim alayhi salam wa zawjatuhu sara bi hadhihi albusra nee na borom xam-xam bi nee na ki doon bind téere bi di ñu nettali xisasul ambiya bi nee na man de mënuma leen a nettali keroog bi malaaka yi waxee saara di nga am doom ibrahima di nga am doom ni ngay màgget màgget di nga am doom nee na ñoom ñaar mbégte guñu bég ba feeñal ko seen kañam kontaante googu nee na man mënuma leen koo netteel waaye kontaan nañ trop ndax yàlla moo ne kontaan nañ waaye xam ngeen ne ab yonent su kontaanee moom lu muy def day sant yàlla waaye doomu aadama ordinaire bu kontaanee lu muy def day sabaru day sabaru dangeen ko bëgg a wet ma indi léegi ay tegtal ku ko weddi rek yëpp sa loxo ma indi léegi misaal doomu aadama ordinaire yi bu ñu kontaanee dañuy sabaru bu la yàlla mayee doom Sénégal ku fi yàlla may doom lu muy def day kontaan day kontaan wala du kontaan bu mu kontaanee lu muy def day sabaru wala ku fi takk jabar da ngay kontaan wala doo kontaan looy def da nga di sabar gis nga yonent nag su ko yàlla mayee xéewal moom day sant yàlla waaye doomu aadama yii ci mbur mbu jii Sénégal ku yàlla defal xéewal au lieu nga sant yàlla déedéet da ngay organiser benn soirée bu mag organiser sabar musique indi band yu góor yeeg sindax yu góor yeeg yu jigéen ñi ñuy tooñ yàlla di ko saaga ndeysaan benn borom xam-xam dafa seen weeru koor weeru koor bu koor gi jeex bu ñu ne tey la ñuy seenu séentu gu jëkk affiche yi ñuy bind ci mbedd yi lan la ah soirée dansante ce soir Samba au revient kumba oo cosaan lañ bind ndeysaan borom xam-xam bi mu bàyyi ba gars yi dem soirée mu ñëw ne asalaamaaleykum ñu ne waaleykum salaam mu ne yéen wooroon ngeen ñu ne gars yi ne waaw woor nañ ñun ñëpp a woor 30 jours kenn dogul benn fan mu ne ndax yàlla nangu na seen koor wóorul de xamuñu ko de ñu ne ah wóoruñ wóoruñu de mu ne bu yàlla nangee seen koor ndax lii ngeen koy sante nii ku yàlla nangu sa koor da ngay dem stade di di di fecc soirée noonu nga koy sante su ko nanguwul nag mu ne ndax lii war na leen mais ñaar rek moo am woor nga ba koor gi jeex yàlla nangu na ko wala nanguwu ko wala ah su ko nangoo noo war a sante yàlla da ngay da ngay musique da ngay organiser soirée su ko nanguwul nag boobu gën a dangereux yow nga woor ba koor gi jeex yàlla nanguwu ko ba pare ngay organiser soirée di fecc yàlla na yàlla dafa sutura Ibrahima kontaan na keroog bi ko yàlla ne may naa la doom bu tudd Ishaq mook soxnaam Saara ndax benn doom dong la amoon muy Ismaïl te Ismaïla moom kan moo doon doom yaayam Haajara te yàlla may na ko ñaareelu doom bu tudd Ishaq yaayam tudd Saara te xam ngeen ne jabaram boo la ñaareel mu ngi woon Makkatal Mukarram ak doomam jooju tudd Ismaïl jabaram ji nekk tuddoon saara moom dafa jaasiroon jaasir lan mooy jaasir loolu arab nan aqim mooy kudul am doom am na ci góor ñi ñoo xam ne duñu am doom am na ci jigéen ñi ñoo xam ne duñu am doom yàlla wax na ci alquran man yàlla fu ma neexee ma may nit ay doom yu góor kese du am jigéen ibrahima doom yu jigéen kese laa moom yàlla wax na ci alquran fu ma neex ma boole la ay góor ak ay jigéen comme nu mu ko mayee muhammad yàlla wax na ci alquran ku ma neex ma may la ay jigéen kese comme luut ay doomu jigéen kese la amoon yàlla wax na ci alquran wa yajalu man yasaaw axiima bu ma neexee nga jaasir doo am dara nga dund ba dee doo am doom am na de yàlla moo koy def de mu neex mu def nga am jabar doo am doom ñu ne utaatal beneen nga wut doo am doom ñu ne utaatal nga wut doo am doom ñu ne utaatal ba nga amoon ñeent doo am dara télégramme mooy ñooñu mën nga leen a fase wala nga dee ñeneen takk leen am ak ñoom doom gis nga yàlla ah kon yàlla tabaraka wa taala mooy maye doom doom nit may ko boppam ibrahima yàlla may na ko doom fekk mi ngi jaasir yàlla defaraatal ko jabaram ba jabar ci am doom fekk am na juróom-ñeent fukki at ak juróom-ñeent mu ne borom bi tabaraka wa taala ba malaaka yi bégalee ibrahim ci dina am doom jooju ci at yu yàgg yooyu ibrahima am ne ko di nga am doom bu góor daal di kontaan loo ndaw si ne ko di nga am doom bu góor ah doom jooju dina tudd ishaaq ishaaq moomu dina am ay doom doom jooju dina tudd yaqub ndeysaan ibrahima mujj na nekk abul anbiya nekk baayu yonent yi alayhimu salaam wa kazalika taajaba ibrahima alayhi salaam istibsaran bi hadihi albusra wa tasbitan laha wa farahan biha qala abasartumuni ala an massaniya alkibru fabima tubashirun qalu bassarnaka bilhaq fala takun min alqanitin ibrahima ne leen lan ngeen may bégal ginnaaw ba ma mekkee màgget ma am téeméeri at ñu ne ko danañ la bégal parce que yàlla moo nu yónni ne di nga am doom mbégal goo xam ne mbégte goo xam ne mbégte dëgg la bul ginnaaw nag bañ la waxee lii bul bokk ci ñi nga xam ne dañoo naagu maa amatuñu yaakaar yow ibrahima amal yaakaar parce que yàlla moo ne la di nga am doom akkadu alxabara بهذه البشارة وقرروه معه فبشروهما بغلام عليم nee na dëgëral nañ wax ji ñoom malaaka yi ne ko bul découragé yàlla moo ne dina la may yàlla lu mu wax mooy am mu ne yàlla tabaraka wa taala may na ko ci xale bu am xam-xam muy Isxaaq fa basharuuhu bi gulaamin alim xale bu am xam-xam alim xale bu am xam-xam wa huwa Ishaq axu ismail mooy isaaq rakku ismail xulaamun alim xale bu am xam-xam la woon seetaan ngeen dundam munasabatu li muqaam li maqaamihi wa sabrihi wa hakaza wasafahu rabbuhu bisidqi alwacdi walsabri qala fi alayati aluxra fabasharnaha bi ishaq wa min wara ishaq yaqub mu ne ibrahim alayhi salaam ci yàlla tabaraka wa taala bégal gum ko bégal ci muñ gumu muñ ci beneen aaya yàlla mu ne bégal naa ko may ko doom bu tudd ishaq ginnaaw ishaq ma may ko yaqub maanaam ishaq judd am doom bu tudd yaqub al imaamu qurtubi rahimahullah mu ne diggante buñ ko bégalee ne ko di nga am doom kaana bayna al bishara wal wilaada mu ne sana fi ko malaaka yi ne di nga am doom ak ba muy am doom mu ne benn at kese la dana fekk saara nekkoon na amul doom euh, mbaqam bi muy jur doom yi dafa yàqu woon parce que dafa jaasiroon nee na yàlla defaraatal ko ko nee na jamono boobu moom saara amoon na juróom-ñeent fukki at ak juróom-ñeent ibrahima yawma izin ibnu mi'ata sana amoon na téeméeri at waaye yàlla tabaraka wa taala moom mooy borom kun fayakun yàlla dafa raatal ko ba ibrahima am doom noonu la malaaka yi continuer daal dem sadum daal leen di alage alagi ji ci dars boo xam ne dina ñëw sunu kanam ndeysaan yàlla tabaraka wa taala di tagg ibrahim mu ne fa lamma zahaba an ibrahima raw raw wa jaathu lbusra yujadiluna fi qawmi lut ibrahima alayhi salaam ba tiitaange gi demee muy discuter ci ak ñun ci nitu lut inna ibrahim la xalimun awahum mubin yàlla ne ibrahima ku lewet la ibrahim awaax ku bëri yërmande la ku koy wax di ko waxaat la di dem di dellusiwaat mu biin mu ne yaa ibrahim malaaka yi ne ko ibrahima naan malaaka yi waaw di tee ngeen a xaar tuuti amaana buñ leen yéexee rëy rey dinañ tuub yàlla ne ko fa arid an haza ya ibrahima arid an haza innahu qad jaa amru rabbik ibrahima foofu bul fa dugg ibrahima discussion boobu bul ko def du moyul toogal rek te déglu seetaanal yàlla tabaraka wa taala jël na décision ci ñii yàlla da leen di alak ndeysaan yàlla mu ne innahu qad jaa amru rabbika wa innahum aatihim azabun gayru mardud waa qawmu luut mbugal mi day ñëw ci ñoom te mbugal mi bu ñëwee du dellu mbokk yi ci histoire yonent yàlla ibrahim ci bégal bu ko daan yàlla doon bégal ne dina am doom isaaq isaaq moomu dina am doom bu tudd yaqub ginnaaw ba mu amee téeméeri at jabaraam juróom-ñeent fukki at loolu moo doon darsu tey bi yàlla na yàlla def si ñun dégg ak topp assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh